Sénégal daw si leen lu bees tàkk ci région bu Thiès xéewal cosmétique kër Serigne Fallou ñu gën ko xam ci KCKS nekk sa marché central bu Thiès avenue Niania Sow jàkkaarloo ko jumaa ji KCKS di boutique bu mag macha allah boo fa duggee rek sa xol sedd guy cheveux naturels bàyyi ko ci loxo Serigne Fallou Galas tout type de cheveux lay wax am na frisé raide ak ondulé longueur boo bëgg 8 ba 42. Thiès dina la ko jaay itegal la frontale closure wala frontal 360 yamul fofu de fallu Galas indil na len ay produits yu amul fenn ci walu diw bepp produit François Bedon Patricia Régnier Macari de Suisse SH18 Premium Glow du ci chomo gamme complet la lay indil maquillage nak KCKS amu ci mimreu ci mim rew marque yu amul fenn laa lay tegal jëlal ma Melanie Fit Me Fair and White ak yeneen xetu marque la fa galas indi la gam complet xeet gu neex fàlloo ma ci doy am na bu mag ak bu ndaw bàyyiwul cristal dior mi xew ci rew mi fàlloo ko denc ci KCKS mani fàllu fofu ngay yam muni ni ma déedéet bambinerie ak lepp lu jëm ci xale couche yere pan peau de chambre ak jouet xale bu jar bo ci bëgg demal seti cosmétique keur Serigne fallu Galas ci marché central bu ties KCKS dina len indil itam lepp luy setal keur bayiko xet gu neex way woo gis nag am na daaneele yow mi nga xam ne yaa bëgg a bégal sa soxna wala sa borom kër KCKS indil na la lépp luy secret de chambre drap de lit ànd cuuraay yu ànd ak décor yu doy waar ay chemise de nuit en cristal ay fer yu am maanaa nga fay fekk yow mi xewle fàllu dalay defaral peñe dox daje bu amul fenn transfert d'argent Wari Wave Orange Money ak Ria échange d'argent KCKS dalay wecc dollar wecc la euro fàllu galas nee na xale a manoote seen fekk ñu toog fa daw si leen balaa muy jeex ay carte de mariage yu doy war traitement fesse ak ange, suppositoire massage ci gàttal tay bo bëgg reuy mba ndaw mba nga bëgg a wàññeeku seetil KCKS góor ñi galas fàttewu leen ben yoon indil na len mew bu doy war yow mi nga xamné ya am anniversaire mariage wala cérémonie KCKS dalay jaay décor yu amul fenn boo ñu bëggee jot hôtel ci 77 563 06 06 77 563 06 06 wala nga fekk ñu foofee ca marché central bu Thiès avenue Niania Sow jàkkaarloog jumaa ji